moo tax lu mel nii ah, gisagoo leen dara ci moom ci kanam ngeen jën a gis lu bari ci moom ndax borom jom la borom ngor la moo waral ma teew. d'accord alors gis nañu jamono ji li ngay assurer vraiment show bi nga xamee ni mooy euh, moom ngay euh, def ak ki nga xam ne ni mooy Pape Diouf dafa mel ni yàlla def na complicité bi dafa dafa teel a adopté wu seen diggante lan moo la may loolu. mais danu yàgg ñun ay professionnels lañu Pape man ak moom depuis Pikine la. Pape man ak moom depuis 97 96 loolu loolu loolu noonu dafa yàgg dañu yarandoo et puis ñun ay professionnels lan lépp lu ñuy liggéey dañ koy def ak yéene ñun dana bokk si ñi nga xam ne dañuy créer ay ay affaire ñun kenn créé wuñu ñun ñooy créer ñun ñooy créer ay waykat ñooy créer ay ay danseur ñooy créer ay waykat boo xam ne fii ngay taxaw nii ngay taxawee ñun dañu bokk ci ñooñu alors que bu ñu yàlla boolee nag ñu nekk ay légende ñëw fekk si légende bu toll ni Pape Diouf mag ñi jàngal ko mu jàngal ndaw ñi damay gën a nekk à l'aise parce que man Thione Seck mooy suma lépp mooy suma àdduna mooy suma lépp alors que coon sincérité ak fidélité laa ànd moom Thione bu ñu waatoon tey Sénégal bu fekkoon dekki am na coon sekki buy dekkiwaat waat bu nekk kan ngay jur sa taaw danaan Ameth Thiou laay jur sama taaw barke yonente yàlla Muhammad parce que loolu lañ seq man ak moom. yaa alors tey juste. Euh, bu leen ma sonal gis nañu ni. waaw Waly mu ngi bu jot am nga xam ne fekkante nga fi ak ñoom. boobu maa ngi ci liggéey. non non bàyyi bu ñu dugg ci débat EFIS. EFIS na mën naa la waay. maa ci jàmm mais EFIS gën ngaa joxe àllarba de. jox ma àllarba gën ngaa joxe àllarba de. <laughs> waaw non xoolal Eliman Lam Eliman moo def lu rëy. ma xam ko li muy liggéey ci réew mi ma gis kilifa réew mi am fu ko teg man ma am benn dynamique bi ma nekk dynamique bi ma nekk fa la Youssou Ndour nekkoon fa la Omar Pène nekkoon fala la Baaba nekkoon ñun ay légende la dañuy defar xool li état wu def ci lu baax ñu wax ko li état deful loo xam ne baaxul ñu jëm ko lu jën ci suuf pour état teg ko man foofu laa ne néew ma ci ay détails néew ma ci loolu maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan Sénégal réew mi am jàmm ñuy jàppale jeunesse bi parce que jeunesse bi moo yor réew mi ëllëg te ñun foofu la ne man foofu laa ne man néew ma fi ngeen ne. waaw waaw lan wax ci li nga xamante ni situation bi toll na si réew mi et puis ñi nga xamante ni si euh, am nañu moyens yi nga xamante ni ilimaan am nañ ko te defuñu lu mel nii lan nga ciy wax. waaw kii mooy suma producteur bu mag bi dégguma question bi bu baax. dama ne lan ngay wax ñi nga xamante ni dañoo taxaw situation bi nga xam ne ilimaan taxaw na a mën a def lu mel nii te defuñu ko. mais dañ ko def tey boo xoolee public bi ci kaw ku ci nekk mën naa jaar seen tur ay ndaanaan rek a fa ne samay xarit lan démb tey soog a ñëw soxna si man dama bokk ci ndaanaan yi nga xam ne dan doon feccal ndaanaan yu mag yi super étoile Baba Maal Omar Pen Thione Seck kon man képp kuy balkat di melomaan dama lay xam tey kilifa yi nga xam ne ñoo jug di ŋànk réew mi ñu ci bari dama amoon fu mu doon dajeeg ñoom te bët bama leen wonoon ak kanam ba ma leen wonoon moom leen wonoon ba tey nanu déglu gaa yi rek ñi toog ci public bi ñëpp ku ci nekk foofu noonu mun ngaa sax jël réew mi gérer ko parce que ay nante fa ay ndaanaan fa ne ay homme d'état ñoo fa ne ñoo xam ne ñu bëgg seen réew la ñu toog fële ay gentleman a fane ne na jeunesse bi dal li may wax rek mooy jeunesse bi nanu dal bu nu dalee rek lépp baax Seexul Xadim fu mu tëdd maam Alaaji Maalik tëdd fa trop tard lu mu yàgg-yàgg njariñ day am mais dal leen rek surtout yéen tamit ma yéen yéen yéen ñu ñoo far yéen presse bi day leen rafetal lépp muy rafet da leen naay sa lépp parce que àdduna loolu rek am solo ca kaw ca kanam naa bu baax. merci ne moom la la gars yi accueillir ñun ak yéen c'est la famille comme ni ma koy waxee chaque jour ñun du ñu dem saa yéen yéen ngeen dem saa ñun c'est la famille donc fu ñu daje rek nii lañ koy defee ak ñun donc yàlla na yàlla def jàmm. Ismaïla Mbaye nee na naw la daa waaw ma nga ne mi ngi may ko bëgg. <laughs> waaw ku baax la. yàlla na ñëpp am jàmm kontaan naa sama gars yi. ci nekk ci màggal gi màggal gi ñu mën nañ la xaar ci son bu bees wala. waaw waaw nañ ma xaar ci lépp mais kon ko ay ñi ngi ci terrain ñëw ñëw ci mbirum liberté fif ci mbirum inauguration nañ wax ci inauguration bi ba beneen yoon ñu wax ci ci wax ngay wax ci acte teg ak ñi nga xamante ni am nañ possibilité def ko te moment bii defuñu ko waaw lii yee nañu bari donc kenn ku nekk lii boo ko defee ci sa gox je pense que ni jeunes yi fa nekk mën a football am talent kenn ku nekk di nga am opportunité pour wane sa talent donc ni ko Elimane Lam defee am na yeneen Elimane Lam yoo xam ne ñu ngi ci gox yi je pense que lii dina leen inspirer pour ñoom it ñu def ko ci seen gox voilà merci beaucoup grand Elimane Lam def lu rëy lii moom ku ne rafetul wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla sa xol bi baaxul ah moo tax sama jigéen invité ma ma ñëw fii tey kontaan torop di ko bëggee di xam ne lii mu def nii ñu bari buñ ko defee réew mi dina bañ dina bari ay sóor dina pour la finale. daa dugg ci li coow li bëri waa ji. non moom moo toll noonu moom ah, bis ni ngi tey waal xam nga ma ko tuddee coowër Wally sek coowër non dafa dugg loolu yàllaa koy def yàlla mooy def li ko yàlla mooy li mu ko defal yàllaa ko def dégg li ma wax bi mu duggee suñ ko passé sax ñu ne Wally su passe bi ratee ñu ne Wally bu bii duggee ñu ne Wally bu génnee ñu ne Wally kon Wally rek waaye waaye daal ki def lii grand Elimane Lam def na lu rëy. waaye ngay cëpp cëpp yow matoo zóor cëpp li tax may cëpp cëpp mooy tey dama sol sortu laay lay la laa. dama <laughs> Rambo di ma naa moom sunu grand la waaye daal li man mooy li gën am te réew li gën a neex mooy réew mépp nañ def ni grand Elimane Lam. ñu dekk Pikine nañ def comme grand Elimane Lam ñi dëkk Géejawaay nañ def comme grand Elimane Lam ñi dëkk Sicap nañ def comme moom ñi dëkk Diourbel Kaolack nañ def comme nii comme ni ko Pape Alioune Ndiaye defee Pape Alioune Ndiaye def na lu mel ni Daara Jolof Pape Alioune Ndiaye kon grand Ali Elimane Lam est-ce que gisee wut lii ci Pape Alioune Ndiaye <laughs> ah, ah ah Pape Alioune moo a def grand Elimane Lam eh, da ngeen bëgg ma wax lu rëy waaye lu rëy li daal mooy lii dugalal bi lay jot. waaw ah, fay naa leen. Euh, tey nga ñëw ci li nga xamante ne moom moo di Ilimane Lam li mu li mu def tey rëy lool lan nga waaw vraiment di ci kontaan bu baax a baax di wax ni jeunesse Sénégal la ko defal jeunesse goxam la ko defal ñu ko ci remercier di wax yàlla na ko yàlla yokk ba mu mën ci def yeneen yu gën a bëri bëri te développement sportif la ah macha allah. waaw lan ngay wax bu noble bi ak ñi nga xamante ne taxaw na situation bi mu taxaw te defuñu lu mel nii. waaw comme di def lu baax yàlla da koy da koy may ay nit am nañu am lu dul jeex mais pour ñu def nii dafay jafe mais nag moom nit bu baax la am yéene ci jeunesse am bu baax xam ba def lii dañ ko ñaar rek mu yokku ñeneen ñu mel ne moom muy ñun ñun ñëpp incha allah bu ñu yàlla dimbalee ñu def lu raw li sa incha allah. nañu xaar Modou def lu mel nii wala lu ko raw. incha allahu taala. gëj nañ la gis foo nekk. non maa ngi ci laamu ñoom dañuy tooñ rek maa ngi ci laamu toujours waaw.